assalamualaikum yéen ñi nga xam yéen ñi sétane ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baaxa baax donc ñu ngi ni seen émission li ci biir ak Baye Cheikh donc ñu lay waxtane ay thème yi nga xam ni dañ koy euh, détaillé nit ñi mën ci jangu bëri bëri ma toogoon nak sama maître sama lepp Baye ma ngi lay siyaar. ziar na la suñu Cheikh. tay dina la waxtaanee thème bu am solo. di nuyu ñëpp waaw. hmm ñëw ci thème bi rek. ok donc tay thème bu ñu nar manam moy euh, euh, mariage précoce et forcé donc mën ñu wax mariage précoce te duñu wax walum walum mariage forcé donc tay lan nga nu mën wax ci mariage forcé ak mariage précoce waa jërëjëf di nuyu ñi nga xamanteni ñoy euh suivre li nga xam moy émission bi Baye Cheikh mhm. di la ziar di la nuyu aussi di nuyu euh, ñi nga xamanteni ño nek derrière la caméra les techniciens di wax ni mariage forcé ak mariage euh, précoce mhm. ñaari tam la mais mënuñu benn mënul dem baye morom mhm. mariage précoce moy nga maye si jigéen lañ koy gën a gis nga jël jigéen may ko borom kër ci at yu néew maanaam majeurul ñu may ko borom kër mu loolu mooy mariage précoce mariage force tamit mooy nga jël jigéen may ko borom kër te laajoo ko wala boog mu des ci ànd te loolu bari na lool ci Sénégal léegi. ok gis nañ tamit parfois condition yi ñu koy defee ci mariage bi donc la fekk ngay mayee xale boo xam ni dëgëragul noonu. Euh, est-ce que mënu indi ay problème yi nga xam ne ay problème mu impuissance ak yenn problème yi nga xam ne day am ci ci xale bu jigéen bi waaw balaa ñuy ci pro ci impuissance ak yooyu mariage forcé ak mariage précoce boo jëlee Sénégal benn jigéen bu ne si ñett daañ ko maye avant mu am 18 ci Sénégal xayma bi ñu def xayma bi ñu def une femme sur trois dañ koy marier de façon forcée walla ñu teel ko maye te heure mayam du jot boo jëlee tamit téeméeri jigéen boo jël ci Sénégal euh, fanweer ak ñett yëpp dañ leen di maye avant ñu am dix-huit ans maanaam sëy nañu avant ñu am dix boo jëlee ñu am tranche diggante ñaar fukki at ba am ñaar fukki ak ñeent ñi ngi ciy maye ñëpp boo jëlee téeméer ci Sénégal fanweer yi ñett dañ leen di maye te duñu am fukki ak juróom-ñett kon bari na Sénégal mais nag booy seet ci maanaam euh, bëriwul ci grande ville yi booy seet maanaam ci village yeeg wala dafa am tradition yuy tax ñuy defee. ñuy doxalee noonu quoi ñi nga xam ñoom aada la si ñoom mhm. dafa am ñoo xam ne aada la dafa am ñoom par exemple boo demee par exemple chez mes parents pël xale bi dañ koy teel a maye mais buñ ko mayee ku góor ki du ko jëlagub day am battement buñ koy may du yàgg ay at dañu maanaam lu ñuy wax takk sagar. Mhm. ñu may ko ko. maanaam eggaleegul eggale mooy nga joxe li nga war a joxe eggaleegul mooy nga bàyyi ba am benn at dëgër nga doog jël sa soxna loolu am na ci tradition mais am na si yoo xam ni dañuy jël xale bi maye ko par force xale bi du xam dara ay treize ans douze ans ñu may lañ borom kër mu nekk loo xamante dafa doy waar te léegi mu ngi gën bare fii nga xamante ne mooy Sénégal malgré que mhm. euh, donc modernisme mi ngi am ci biir réew à travers tout le Sénégal. mais est-ce que aussi tamit parents parfois du dañuy daw euh, yenn yenn risques parce que xale yi léegi boo mayewul yenn âge ñoy dem indi la légui légui dom donc est-ce que du problème yoy lañuy daw ba ñenn ñi légui ñi teel a maye seen doom yi. waaw causes yi bare na yi dafa multiple am na ñoo xam par exemple dañuy am jarbat wala ñu am mbokk bu wo xamanteni wala seen seen mak wala seen rak am dom ñu bëgg lignée bi manam mbokk gi gëna a dëgër wala mbokk gi sax ñu jël seen dom may ko seen doomu nijaay wala et cetera et cetera loolu dafa am am na dañ koy def parce que dañu xam jamono bi nu mu def nu mu tëddoo jamono bi nek na jamono bo xamante les mœurs sont légères. Mhm. waaw motax ñuy tel jël sen dom maye ko mais ay risque la aussi. ok parce que ci cause bobu nonu da fay am li nane naan euh, li ñu de sexe parce que bo bëggee jël ko xamni ne dafa am 12 ans nga bëgg a may koo xam mi ngi 56 ans donc. Euh, inégalité sexe bobu non, day day day day posé problème ah ak parfois euh, bu nekkee en état de grossesse mu wara metti ci mom donc yooyu tamit est-ce que jotul ñu mën ci baye xel mëna dimbali xalé ci ci ci ci fànn yooyu non. Wa, xam nga tradition dafa am mais bo jëlé ñun Sénégal religion yi ñuy top. Mhm. yi fi ëpp doolé muy l'islam muy christianisme mhm. dañu ni bala ngay maye ñaar nit balaa ñu leen di maye fook ñu am sen consentement mutuel manam ku goor ki day nangu mhm. ku jigen ki nangu at bu mënti toll nak ku góor ki dafa wara nangu ku jigen ki nangu ñu dogal leena may kon ñun religion yi top nangu nañ ko mais des fois dañuy top tradition ba nga xamanteni ni dañuy jël xalé yi di leen may ta seen heure may du jot parce que tamit sey euh, euh, fo nga am experience mhm. dafa am temps bo xamanteni ci nga wara dugg ci sey même bu fekke l'islam dafa wax entre 13 14 ans mais quand même xam nga tay xalé bu am 13 ans xamagul dara boo ko mayee dañ ko loraange bi moo ëpp lu mu ciy gañ moo tax euh, ñu bëri dañ naan majeur agul bu dee chez les chrétiens wala yooyu dañuy bàyyi ba majeur ñu maye ko mhm. mais yooyu yëpp waxtaan la rek mhm. tradition bi benn moment dafa amoon doolee xool booy xool sax léegi nit ñi ñu ngi ci bàyyi xel parce que gis nañ fi ay cas yoo dañ leen maye ñu daw dem wala ñu bañ catégoriquement te bu ci yoon jotee mën na la indil problème yow parent mais ci yoon boobu noonu est-ce que est-ce que est-ce que tamit euh, yoon boobu noonu ñu ngi koy mi ngi mi ngi dox ba léegi maanaam loi yi nga xam ne teg nañ ko pour ñu mën ko respecter est-ce que mi ngi daw ba léegi waaw loi yi mi ngi loi yi moo am mais exécution bi moo des exécution bi moom laa lay wax mhm. par exemple da ngay dem benn village bu reculé ñu jël benn xale bu ndaw mayee ko mu commencé sëy par exemple bu fekkee grande ville la la la sécurité maanaam force yi fi ñu nekk mhm. ñi nga xam ne ñoo yor wàllu yoon ñuy ëppé ci grande ville mën nañ ko bañ yëk mais manam mariage dafa am lu koy waral. Mhm. mariage bu ñu par consentement mutuel. mais aussi mariage dafa am étape. Mhm. dafa dafa am étape bi nga xamanteni mo ci ëpp solo mais toujours dañ koy tepp muy lan mooy étape bi nga xamanteni mom mhm. nga wara a ku jigen ki waxtaan ak tek ku goor gi waxtaan ak ñom ndax juboo nañu ndax d'accord nañu ndax bëgg nga diw. bu ne waaw ñu may ko ku góor ki tam ñu laaj ko ndax bëgg nga diw ñu doog lay may mais dañuy tëb rek ñu ni <laughs> euh, euh, réception wala ñu ni dañuy dem mairie dañuy dem église dañuy dem jàkka ja mhm. même sax dans l'islam on dit souvent que le deux mariés dañuy war a toog dañu war a ñëw ci jàkka ji ñu toog ñu déglu xutba bi nga xam ne imaam da koy def ah loolu dafa war a dafa war a mais amu fi nag am na mais barewul daal soo jëlee mille ñaar ñoo ko ci def parce que loolu dafa am solo parce que dañ leen di yab mhm. mais avant boobu dafa am loo xam dafa war a am ci kër ya muy maanaam ñu jël moodu ñun la ndax bëgg nga diw dañ la ko bëgg a may faatu ndax bëgg nga moodu dañ la ko bëgg a may ñu am ñoom ñaar ñëpp bu ñu wee nañ leen ci defal su fekkee jubawuñ am na ku ci bañ wala ku ci bañ ñu waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaanee waxtaan mu dëgër mhm. dañu war a bàyyi donc ci ci Mhm. Mhm. L'islam dafa bañ ñu forcer nit may ko borom kër dafa forcer nit donc ci bi kër nga dugg parce que duñ kër te duñ ñun est-ce que amul euh, responsabilité bi nga xam à travers seen ay bien sûr parce que parents yi dañuy ñëw indi seen maanaam seen hégémonie mhm. ñëw ni may borom kër gi li neex fi am d'accord borom borom kër gi moko ko mom momay borom kër gi kenn mhm. weddiwul lool mhm. mais aussi borom kër day waxtaan ak jabotam effectivement par exemple par exemple da ngay bu njëkk da nga daan gis dañuy tok veille nocturne mam mhm. yi tok wala papa ji tok ñu tok autour du feu waxtaan gindookante lépp waxtaan ku ne xam mais léegi dafa am influence bu ci am avec les NTIC les nouvelles technologies de l'information et de la communication tu rentres dans une maison da ngay dugg euh, donc ci kër manam autour du thé dañ un atay bi mhm. sa portable téléphone. manipuler rek Instagram ni ngi ci ngi ordinateur yi. <laughs> Hein? télévision ku nek yaangi sa coin légui nek dugg dafa am télé. Mhm. dugg ordinateur portable. ku nek mi sa téléphone ci wifi mhm. légui waxtan bobu am échange da fay influer ba ci mariage parce que waxtaan bi ñu daan waxtaan ak da gis borom kër goo xam ni day liggéey boo wàcc ba bu muy tëdd waa këram doo gis mu waxtaan ak ñoom wala même soxnam sax pour mu waxtaan ak ñoom problème est-ce que lolu tamit du complexe parfois bu jigen wara gérer kërëm parce que bu dee góor ñi amunu jotu tok ci kër yi di gérer donc jigen yi nga xam ñofi tok toog ñoo conscientiser yi nga xam ñoo di jeunes yi mais bo xol légui yaay léegi taltun ko est-ce que tamit amuñu tamit benn part responsable yi ci am ñom en tant que maire aussi tamit. ci bul jël toor bi jox ko yaay yi. góor ñi de góor ñi mais mais dañuy liggéey. góor yi dañuy liggéey mais dañuy wacc lo <laughs> liggéey liggéey di nga wacc ñëw ci kër gi. ah mais heure yi ngay day fekk ba am mais da ngay gis par exemple borom keur bo xamni bu wacce mhm. du xol njabotam ci limu nek mais des fois sax la plupart day fekk njabot gep nelaw. Mhm. mais kon jigen gi mo fa ma si sax même bu gor gi liggéeyul ku jigen gi mo fa nek moy gérer la fa kër gi. mooy gérer la fa ñu koy gérer sax. Mhm. jigen ñi jambar lañ mais dafa dess dafa dess parce que jigen ñi aussi dañu dugg ci gam bobu day gis man damay sama borom day liggéey man damay liggéey. ku gor ki jaaree ni ku jigen ki jaar ni kan mo yor njabot gi. ben bon tekko

donc forcément bëgg jotee ñu wara a parfois mu am ay kiray euh, may am seen biir donc est-ce que yoy timit parfois du li nga xamni ne mën na pousser xalé bi que mu nekk ci problème yo xamni da kay euh, indi ëlëk ay ay ay ay ay ay yenn comment dire yenn yenn problème yi nga xamni day am ci mom dal digënté avenir ak ay doomam ak yoy non bien sûr amna ay conséquences très néfastes sax parce que ki jigéen ki boko mayé mu commencer nekk ci âge de la puberté commencer mag di xam touti aduna nga këf ko rek dugal ko ci sëy déjà privé nga ko lu bari déjà privé nga ko am na yu bari du ko xam mhm. te yaay li ñuy waxtaan ak seen doom yu bareetul ci wàllu sëy yab mhm. laak yooyu mhm. mais xale bi âge am d'abord âge am na ñoo xam ni dañu précoce jigéen ñoo xam ni bu ñu nee la kii 16 ans la am da nga naan déedéet mën na am mën naa am am na ñoo xam ne dañuy dominer seen am na ñoo xam ne seen âge. daf leen dominer li nga dëgg la parfois ma dajeeg xale yoo xam ne bu la nee ñu 16 ans am nga mais mais, 23 ans <laughs> mais mais dafa am code de la famille au Sénégal. code de la famille dans son article 108 dafa même pour mais, mineurs lañ. mais, mais, même bu mais, ay mineurs consentement. muy mais, ak même mais, mineurs la dafa da nga mais, waxtaan ak mom, ba mu mais, code de la famille dans son article. 108 mo ñëk wax lool mhm. bo ñëwee ci article 111 dafa wax ni entre ku goor ku âgé de plus de 18 ans ak ku jigen ku âgé de plus de 16 ans ñu lañ wara mayé mhm. waru ñu mayé ku waru ñu la may jabar soxna ta amo plus de 18 ans ku waru ñu la may borom kër ta amo plus de 16 ans. Mhm. xam nga 16 ans majeurugul ci walu nasaraan. nasaraan waaw mais ci lislaam 16 ans mën na la may jëkkër. 16 borom kër 15 ans 16 ans mais toujours rek day indi ni foog consentement foog mu nangu. Mhm. kenn war ko forcer. conséquence nag bare na am ñoo xam dañ fay figuer maanaam daw. Mhm. dem nek ci leneen lu gëna wiyé sax ci lu ci ci li nga xamante ni moom lañ leen duggal am ñoo xam dañuy ñëw nek ci sëy jotuñu majeur wala amuñu benn expérience bi. Mhm. loolu indi par exemple mu jëlé ci ay fièvre wala mu traumatiser ko ci wàllu bopp. ba ci ba ci parfois en état de grossesse. waaw mu am doomam gis xale bu ndaw. Mhm. mu nekk en état. Mhm. mën na ne ay conséquences yàlla tere ñàkk bakkan sax mën na ci am. Ah, bari na bari na ay conséquence yoo xam ni. Mhm. vraiment fi parent bi di réccoo fekk c'est trop tard. waaw day fekk mu trop tard. mais aussi am na ñu parfois tamit comme seen doom yi bu ñu juddoo maanaam dañ leen dul euh, déclarer ba parfois doo mën a xam seen âge exactement ba buñ leen maye est tamit loolu tamit bokkul ci li nga xam ni parents yi aussi war bàyyi xel.

ah ba waa kër Dukkure kooku kooku bi ñu koy denc ay problème la ñu am parce que booy juddu da war a am këyit booy génn àdduna da ngay am këyit. Ah, parce que ni ngay ñëwee xam nga fii. Uh-huh. ngay gis ak ñu ni diw dee na ñu yóbbu jàkka jàkk yooyu mais dafa war a am médecin bu war a ñëw. Mm-hmm. def constatation de décès. Mm-hmm. daal di bind këyit daal di bind ni kii ñu ko kii diw bàyyi jaañkat wala diw mii jóge na fi. Mm-hmm. lii moo ko faat bu fekkee mën na ko mën na ko xam.

sincèrement je xol sam mi parce que ay déclaration yi à travers les quartiers à travers les localités mhm. mais vous des Vous bari na xam dañuy dem bay def examen ñu nan amuñu mhm. kon ñuy lancer wala appel rek di wax mhm. bu sa fay dara nga hôpital de Saint-Louis dafa am da ngay la mairie. nga dem directement maire ñu vous nañu dem déclarer donc xamna temps bi li mu jeex gaay ni may ni may signaler léegi euh, bu ñu ñëw ci action yi manam li nga xam tamit war nañ ko mëna a waxuma sax au niveau national mais au niveau international parce que dégg na 12 millions personnes la may 10 millions jeunes la may chaque année ci ñi nga xamni sen âge tologul ci ñu wara a donc est ce que amul tamit ay euh, plan yu wara mëna tek pour que mëna a xeex nu mel. waaw plan yu bari na parce que wala plan yi sax. Mhm. amna ay organismes yu fi ne di xeex lool une femme. Mhm. une femme amna ñun suñu ministère de la femme de la famille bi. Mhm day mais est-ce que est-ce que gars yi koy gars mi ngi mi mhm. UNICEF. Mhm. parce que vous bu ne sa signé une charte. Mhm. charte africaine des droits et du bien-être des enfants muy convention des Nations Unies euh, sur les droits de l'enfant depuis 1998 la manam dafa amat tamit wax euh, charte des droits de l'homme et des peuples le protocole de Maputo 2004 lañ ko signé Sénégal daf ci bokk. yeneen réew yu bare bokk kon boo bokkee ci benn charte da nga ciy tënku amoon droit def lu wàcc charte boobu am na tamit ay organisme wax dëgg yàlla yoo xam ne ñu ngi ciy xeex di ci def lu ñu man di def ay moyens vraiment di ci xeex mhm. mais xeex bi organisme lu mu ci mën mhm. état lu mu ci mën xeex bi ci kër ga la war a commencé ah, parents yi ñoo war a conscient foofu la war a moom waaw parents yi mhm. ñoo war a conscient ni xale bi balaa nga koy maye na ñor comme lu ñuy wax ñor na nekk koo xam ni xam naa tuuti àdduna. na pare waaw nga doog koy maye. comprendre mm-hmm. teel maye baax na teel sëy baax na. ci mm-hmm. góor comme ci jigéen. Mm-hmm. mais aussi dugal xale bi si sëy te xamagul àdduna xamul dara aussi da nga koy lor rek. te boo ko loree sa bopp nga loor parce que sa njaboot la. kon xeex bi dañ ko war a gën a densifier. bu ñu gisee cas yooyu ñu taxaw ci. imposer nit ñi imaam yi nga xamante ni ñooy maye ak di kii ñuy imposer boo demee si jàkkee sax. mariage yi léegi day am carnet boo xam ni day am carnet boo xam ne dañ ko ciy bind mais ñuy imposer ni ñuy demee jàkka ñu koy demee mairie wala ni ñuy demee mairie ñu koy demee jàkka ja pour xool âge xale yi di xoolaale ñi ñuy maye. Mhm. ndax d'accord nañu yooyu yëpp bu ñu koy xool di ko vérifier avant affaire bi am yaakaar naa dana wàññi lu bare. ok dana wàññi lu bare. muy cas boo xam ni daal vraiment état yi aussi war nañ ci gën dugal seen loxo. Mhm. gën si investir. Mhm. nous muy lor de na ci nous te lépp ci kër donc donc je pense que nous nga xam nous été en tamit de se faire. ndax mais parfois juste pour pour souligner parfois mes parents sont tamit parce que booy nekk dëkk ak jeunes yi suñu genre yi ni dara lépp les jël euh, yi xam nga ah gaz gaz gaz nga ni ku bu ci parent yi jógu rek day am ay kii donc bàyyi ma lay bàyyi rek waaw li ñuy tàggoo rek di lancer un appel donc au parents surtout mm-hmm. muy yaay di pap mm-hmm. nañuy waxtaan ak xale yi parce que communication bi mooy mooy jàllale lu bëri mm-hmm. même xale boo koy mayee ci benn âge seize ans communiquer moom di waxtaan ak moom yaay di waxtaan papa yi di waxtaan ngeen communiquer di leen laaj seen avis parce que dañ ci bokk dañ ci bokk parce que mooy dem sëy parent bi day toog mais xale bi mooy dem génn këram dem ci beneen kër. Mhm. kon nañ leen laaj seen avis di am seen consentement même bu ñu ko amulee ñuy waxtaan ak ñoom ba ba ñuy d'accord moo gën. Mhm. encore une fois ñuy lancer waat appel état yi ñuy éviter mariage précoce yi. Mhm. xale yi dañ leen bàyyi ñu jàng xam àdduna. mais aussi xale yi aussi nañ xam seen bopp. xam sa bopp mooy. jigéen boppam rek la am. te bu ko joxee wala mu yàq ko yàq na. aduna kon ñoom it nañu conscient xam ne seen parents yi sonn nañ ci ñoom ñu góorgóorlu ci wàllu wow euh, association wala organisme yi xeex loolu ñu ngi leen encourage ñu gën ko xeex mm-hmm. di gërëm bu baax ki nga xamante ni mooy Cheikh mm-hmm. ak ñi nekk ci gannaaw mm-hmm. euh, donc euh, muy Mandiaye ak Ale Thiam ñi nga xam ñoo nekk au niveau de la caméra di leen joxaat daje rek ci yeneen émission Baye Cheikh nous sommes à votre disposition

ñoo ngi leen di dox dig ak dajé ak ci yeneen numéro inshallah di gërëm aussi sama nanan yi nekk ci ginnaw man Ndiaye Fall euh, euh gas ma ngi lay char bu baax di char aussi tamit euh, euh Bilal moom mi nga xam mooy direct directeur création bi donc bu ko défé rek ñoo leen dox euh, dig ak dajé ci yeneen numéro inshallah assalamu incha allah salaamaaleykum.